merci beaucoup ci question bu am solo bi donc solo su meeting solo meeting bi bëri na. Mhm. Euh, bi ci njëkk mooy meeting bu ñu daan la parce que ñoo ngi ci dixième édition mu nekk meeting international boo xam ne regroupé wut ay sénégalais kese day regroupé plus de dix sept nationalités. ñoo ngi Sénégal ñëw nañu commencé nañ ñëw am nañu ñëw démb parce que quatre-vingts euh, comment dirais-je quatre-vingts athlètes ñëw nañ démb tey aussi ñoo ngi xaar lu tolloog lim bu toll noonu. Mhm. voilà donc presque meeting nekk biir groupe 17 pays mu nekk meeting international. Mhm. boo xam ne tey Sénégal daf euh, daanaka euh, li ñuy wax euh, caméra yi fi lañ fi lañ fi lañ braqué en matière d'athlétisme tey parce que Afrique xam nañ ko ay Europe aussi xam nañ ko. Mhm. meeting bi aussi du meeting bu ñuy soo a organiser ñoo ngi ci dixième édition ñu ci bëri sénégalais yi daan nañ fàttaliw. fàttaliku wala challenge bi daan am Léopold Sédar Senghor ñi ko daan seetaan yi mhm. muy drainer foule bu mag dañoo toog nag sept ans organisé wuñ ko daaw lañ ko reprendre. Mhm. ñu toog waxtaan décidé na dañ koy andiwaat pourquoi parce que ville yu mag yu bëri boo demee Paris. am nañ mhm. seen meeting wala marathon nga dem Rome donc capitale dëkk yëpp am nañ événement bu mag bu ñuy organiser Sénégal ne du ma des ginnaaw donc dañ koy organiser moo tax ñu indiwaat ko ren. justement euh, yéen a ngi ci dixième édition bi mais toog ngeen lu yàgg defoo leen ko meeting bu am solo euh, je pense que daaw atel yu bëri ñëwoon nañu je pense que am na ñu jóge woon sax France daal di ñëw participer euh, ngeen toog lu yàgg defoo leen ko lan moo tax ba bless bi fan la nekkoon lan moo tax ngeen toog des années defoo leen meeting bi. waaw ñaari raison rek moo taxoon meeting bi arrêté parce que ki ñu daan accompagner. Mhm. moo nekkoon ci ay jafe parce que meeting bi day jël xaalis bu bëri. mooy kan. mairie Dakar. mooy jamono yi fi Khalifa Sall nekkee ak kii nii Khalifa jóge fii. kii par ñu place ko donc bon ñi ñëw amut continuité. parce que dañ fa amoon ak ñoom benn convention ñu ñuy jox 60 millions par an ñi koy dugal ci meeting bi ñi ñëw loolu bloqué loolu moo waral meeting bi dem ñi dem ba 2019. Mhm. Covid bi dugg si donc 2019 mënuñ ko organiser 2020 mënuñ ko organiser ba 2021 2022 lañ ko reprendre. fekk Covid bi xaw na jeex parce que mën nañu organiser léegi ay compétition mhm. ñi ci wuti yeneen partenaire nag. ànd ceeg ñoom waxtaan ak ñoom ba ñu indiwaat meeting bi daaw donc bi koy indi aussi meeting bronze lañ ko commencé mhm. parce que bañ koy bàyyi meeting wël di challenge lañ yoroon maanaam bi gën a kawe mais booy démarré waat toog organisé woo ko mënoo tëb tëb rek commencé waat ko fa nekkoon mhm. faaw nga euh, raamaat ndànk ba jóg mhm. daaw def nañ bronze ren ñi ngi defaat bronze mais déwén incha allah argent lañ bëgg a jëm donc bu ñu ko CA autorisé